moi mon expertise c'est dans le domaine du marketing management communication il faut mm. qu'on soit clair mm. xam-xam dafa fiir mm. loolu les experts en RH les inspecteurs du travail et cetera ñooñu mën nañ la ci wax loo xam ne kenn du ko dindi man nag duma ma wu ci loolu par contre mën naa aventuré wu ci dara mooy am na jeunes yoo xam ne amuñu liggéey yaa xam noo ko tuddee am na ñoo xam ne dañ ne chômage mooy boo liggéeyee ba ñàkk liggéey am na ñoo xam ne jàpp nañ ne nga nekk am capacité liggéey te liggéey yooyu yaa ngi ci chômage et cetera. Mm-hmm. loolu c'est des concepts que les gens discutent. et mm-hmm. pour lesquels il y a des experts très bien qualifiés. Mm-hmm. pour répondre à ça. par contre il y a un constat qui est là le constat c'est quoi que y a des jeunes qui n'ont pas pu terminer leur formation scolaire. qui sont en situation de sous-emploi. ou d'inactivité. il y a des jeunes qui ont pu terminer tout leur cycle de formation. qui n'arrivent pas à trouver un emploi je crois que ça c'est des constats réels mm-hmm. yoo xam ne loolu la ñu war a xool seet kii ban solution lañ ci war a mën a am mm-hmm. solution yi mun na nekk ay solution macroéconomique mooy nag comme ni ñu ko waxee woon naka la ñuy defee adéquation euh, l'adéquation entre l'emploi et la et la et la formation mm-hmm. xool naka la ñuy mën a defee loolu mais comme ni ma ko waxee woon keroog euh, ce qui se passe aujourd'hui c'est que tey amul benn organisation ci état bi ci li ma xam man boo xam ne mi ngi toog di def ay projection dans trois ans dans cinq ans dans dix ans yan yan liggéey lañ soxla biir Sénégal loolu amu fi les gens ne le font pas même booy xool ñiy def salon de l'emploi ñoom salon de l'emploi simple la ñuy def waxuma salon du premier emploi parce qu'il y a un salon de l'emploi le salon de l'emploi ne fait qu'un salon pour rencontrer les jeunes il pas de prospective pour voir quels sont les métiers de demain te loolu bu amul doo mën a defar formation biy préparer ñu jël ñu jëli noonu. Mm. ça c'est un deuxième élément. il faut que l'État interroge cette distinction entre le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Éducation supérieure et le ministère de l'apprentissage ou de la formation profe professionnelle. Mm-hmm. parce que tey tam problème bu rëy la dañuy gis ba bërki démb defe naa maa ngi gis benn femme bu nekk ak doomam ndeysaan bu jigéen boo xam ne terminal la nekk mu koy xas. ne ko sonn naa ci yow monsieur Kane jàppale ma ma ne ndaw si la nga bëgg def mu ne man coiffure laa bëgg def ma ni Adja ma ne ko mais Adja yaa ngi rey sa doom di ko sonn loo ci def bac mm-hmm. te kii am na BFM ba pare mën na def formation professionnelle mm-hmm. parce que dam jàng bi ñu jàng tam pour lan la pour am liggéey la mm-hmm. mais boo ma naree jàngloo bac plus cinq fekk man li ma bëgg liggéey bac plus 3 la wala bac plus 2 wala laajul sax bac wala BFM la wala CAP mais pourquoi nga may sonn loolu di ma defal 10 ans 15 ans de formation alors que man xëy na yaa 10 ans 15 ans a naa ubbi sama business commencé ci jox ndax loolu mooy li ma neex c'est pourquoi on dit tout le temps aux jeunes et aux parents parce que les parents sont sont très responsables dans ça il faut travailler sur un processus de développement personnel il ne parce qu'on est obligé de faire mm. boo ñu ne da nga war da nga war da nga war problème lay indi moo tax ma ni Sénégal bokk na ci li ñu gën a mooy suñuy aada. Hmm. da ngay judd ñu ne la wareef kese nga am waroo wax sa xalaat. Hmm. Euh, dañ loo dañ ne yow yaa ngi ci ndigal ak tere. Hmm. ndigal ak tere. boo demee ba am dix huit ans ba dix neuf ans ba ab bac ci ngay doog a commencé yow rendre compte ne yaa moom sa bopp léegi nga seet lan nga war a bëgg def su boobaa nga réer. j'ai donné le cas de beaucoup de de de yoo xam ne on leur dit l'importance c'est d'avoir la moyenne d'être parmi les meilleurs de la classe. pour ça. Mais arrivé maintenant à un certain niveau, euh, <laughs> ils ont le bac, ils ont tout. Après, ils se posent la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il faut faire après mm, mm. il faut quest de jeunes ngay gis ñu ñëw dem na la dama bëgg nekk médecin man moo mës a doon sama rêve mais am na bac mais bac littéraire la. ko fan mm. lay nekkee médecin xam nga yooyu yëpp c'est des problèmes. pourquoi parce que en amont bàyyiwuñu xale bi muy wax di xalaat. am na benn waa joo xam ne kilifa gu rëy la bëgguma wax turam mu ne ma li ko metti mooy dafa am doomam kooku jàng mu yóbbu ko États-Unis doom ji jàng fa ba am doctorat ba commencé fa jàngale ci biir université américain yi mu ne benn jour doom ja yeewu bàyyi jàngal bi ubbi restaurant mu ne alors mais monsieur Kane man looloo ma métti ça me fait très mal je pas ndax dañ ko marabouté ma ne que non mm. c'est sa passion c'est que yow yaa ko dugal ci jàng rek pour ton plaisir personnel mm. pour wax ne man am naa doctorat sama doom am na doctorat mais sa mm. doom boobu yow doctorat bu da ko de pour te na li mu def la nekk ci restauration bi donc ñuy ndawtu ñuy ku am doom ca mu nekkee ndaw tuuti tànk nga jéem a di accompagner xale xole pour xool quelles sont les compétences de l'enfant mm. quelles sont les moo tax jàngale bi moo tax mm. ma ne il faut ñu xool loolu mm. gis nga mon frère xale ñu ngi koy préparer ci préscolaire préscolaire la ñuy commencer tey boo gisee ñiy jàngale ci préscolaire on commence dañ leen di jàngal ne bu fekkee da nga yore ay xale préscolaire doo ñëw rek di leen di saane lii nga ak lii nga war def de ce qu'on appelle bu fekkoon ne kon approche boobu ñu am noonu préscolaire moom la ñu am primaire am ko secondaire ba ci kanam. Mm. di nga gis ne on aurait mieux réussi parce que on écoute l'enfant on le laisse s'exprimer on part de des constats de la psychologie de la vision des rêves de l'enfant mmh. pour l'aider petit à petit à pouvoir aller vers des domaines où non seulement il se sent à l'aise mais il a envie de réussir mmh. et quand on a envie de réussir on réussit C'est pourquoi tout le temps on dit que ce n'est pas vouloir n'est pas pouvoir, mais c'est pouvoir qui crée le vouloir. Mmh. Parce que tu peux, tu te sens à l'aise que tu le fais. Mm. Mais quand réellement tu veux quelque chose, mais tu n'as pas les moyens, tu n'as pas la motivation, bah, tu t'en sors